asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 12 mars 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu lamb nag tey fa la ñuy xëy doore yëglikaay bi nag tey tafaatin la wone tafaa nag costume am la sol waaye fecc na ba kos ba naaw wala daal mu nga mel ni koo xam ne yaram wa moo tàng wala ay tànkam di xesen wala mu bëgg a laalante tafaa daal fi mu nekk nii nee li mu xiif lenn dong la namante na daal defante bàccantey korosé bëre daal la Tapha Tine nam fi mu nekk nii moo tax nag mu xëy tey di ko wax Balla gay numéro 2 moom bokk na ca ña nga xam ne ñoom la gën a nam ngir fas yéene nag jàmmaarloog moom ndax nag Tapha jàpp na ne da koo daanoon waaye kii di Bombardier moom Tapha ne na moom amul màqaamaam ma di ko défier ndax li ko metti maa ko ko teg maa ko duma ba docteur yi nangu ko moo tax ne na kooku moom xalaatuma di ko laaj fi mu nekk nii daal Tapha moom xëy na daal di wax ay dëggam bëre daal bëgg na ko lool lool lool sunu làmb xëy tey ñëw ci loolu kenn ka muy waxal nag muy Bombardier moom daa mel ni yëglikaay bi nee na dey ñaari at moo ko dese ngir mu dem ca retraite moo tax nag fi mu nekk nii day mu ngi di sànni dernière missilam yi nga xam ne daal missilam yu mujj daal mu ngi fi mu nekk nii di ko sànni muy ay bombam yu mujj moom mi nga xam ne mooy bombar Bombardier bu Mbuur ñii moom seeni bomb daa mel ni fi mu nekk nii bu dee tàkk itam mënatu la gaañ kenn muy Waarok energie crise daal la fa dugg coow la mel ni tuleeg màlle ñu ngi koy jiiñante boycotté nañ leen ña nga xam ne ñooy bureau des ménages seeni mbër mënatuñoo bëre mu mel ni kii nag mbir mooma fi mu nekk nii daal ka nga xam ne nii moom lañ ci gën a tuumaal mooy Cheikh Sow ndax jàpp nañ ne moom day li mu war a def mooy daal joxe mbir yi te demu yoonam ndax nag demul cëng dikkul mbay laar keneen koo xam ne tamit gis nañ ne moom fi mu nekk ni joxoon nañ ko baaramu tuuma moom mooy biram ñëng ma ñu jàpp ne nag ñëw gi mu ñëw nekk manaat saw móodloo bokk na ci li nga xam ne moo leen gën a indil problème waaye xale yi mbër ya nag ca jamono yooya ñu ngay wax la leen metti di woo móodloo di ko xamal ne day moom la ñu amal problème wala dañ koo mere liñ koy xamal daal mooy mooy communication wax ci te jéem leen a jàppale ndax nag mooy mbër mi nga xam ne nii moom mooy mbër mu mag ma te moom dañu koy roy mu mel ni ki nag seeni mbir fi mu nekk nii tar na lool à Cissé moom jàpp nañ ne ku leen manqué manqué la ndax nag ba mu fa nekkee day xale yi dañ daan bëre guddeeg bëccëg combat yi ñëw loolu mooy li nga xam ne ni moom lañ fa gis tey mu mel ni ki daal fi mu nekk nii bureau de ménage ba ah est-ce que sax ñoom du ñoom li ñu leen boycotté moom moo waral seeni mbir taxaw tem fi mu nekk nii mu mel ni Rock Énergie moom dem defu dem daal defatu ko beneen xale ngi nii moom boo xam ne ci yoonu dem la ne muy Aline Mbaye Nder sunu làmb ñëw na tey wan ñu ko mu mel ni moom fi mu nekk nii day màgg daal ca la koo xam ne moom da doon bëree muy fàllu kalandoo digganteem ak am di na koy mu mel ni moom day la lamu gis tàng na cinquante cinq secondes daal lañu ñu ko woon biddiwu bëccëg daan ko daal di ko fay bàyyi moo tax yéeglikaay won ñu ko mu yenu ay loxoom mel ni koo xam ne nii dafa waaru pàccaam tamit defal na kii nga xam ne nii mooy mbay saa 37 loolu yëglikaay bi di suñu làmb xëy tey wax ñu ko yëglikaay bi tamit ñëw na ci koo xam ne nii ab xale la nekk parcelle mbooloo bu doog énergie amee problème moom parcelle mbooloo ñu ngi ci seen jàmm ndax sunu làmb ne na ginnaaw fara ak cette victoire mi beneen xale ngi nii buñ bara bàyyi xel ca parcelle mbooloo muy bokkaa moom itam mu ngi ci sept victoire yoo xam ne ni daal am na ko ci lii nga xam ne mooy arène bi Leewtoo point net moom mu nuy xamal championnat d'Afrique ya a am ci Tunisie mu mel ni ki suba day équipe nationale ya nga xam ne ñoo cay dem di góor di jigéen suba la ñuy dugg Léopold Senghor ci wàllum regroupement ngir di waajal championnat d'Afrique yooyu nga xam ne ca Tunisie lay amee leneen loo xam ne moom bu ñëboo muy kii nga xam ne nii mooy papa yadd bu lébu gi ak papa booy jinne bu écrit waalo suba nag la def seen open press waajal seen ay combat di dimanche jiinu jëm ca stadium Iba Mar Diop kenn koo xam ne mi mu nga ca waaj mu méttee métti mooy Assane Ndiaye borom Baol production le 23 mars lay ñëw moom itam fële nga xam ne mooy ca stadium Iba Mar Diop ñaari grand combat la fa tëgg wala lu ko ëpp ndax boo bëggee dégg dëgg drapeau Aziz Ndiaye mu nga ca biir maam Ball moo ma parcelle mbooloo waaye Assane da caa yemul Cheikh Ablaye Diop xaas moom tamit am na ca drapeau muy deuxième drapeau ba général Malika bu Malika ak kii nga xam ne mooy mbaytin bu école dalit morfaram Cheikh Ablaye jóom xaas drapeau ba noonu na Leewtoo TV xaas wala Leewtoo xaas kon sang bi ñu ngi lay ziar na xaas yi ñëw Leewtoo gën a avancé ak waa Leewtoo yëpp waaye sax réew mi gën a avancé ba ci taala ne na boppam waaye man dama naan ñëpp yal na ñëpp avancé taala salaamaaleykum mbokk yi suivre Leewtoo TV yëpp ma leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di leen wax euh, namoon naa leen trop euh, weekend bi guddoon na ñu enchaîné lundi bi démb Ndeye Comba moo fi nekkoon ak yéen ma leen di nuyu bu baax di leen ziar baalu leen àq te di leen baal àq di ñëw di nuyu sama mag sama xarit nam ko lool Babacar nuyu naa la. ay sa maa lay fay sama rakk ah comme ni ñu koy waxee madame ñaa comme ni nga ko waxee nag tey revue bi ñu ñëw ànd ci ak yow parce que dem da nga doon dallu ndax fan yi génn liggéey bi moo xawoon a saf quoi mais nag di jégalu gars yi parce que dem boo xoolee jàngatu revue bi am dafa amoon problème ba mujjul génn quoi kon ñu ngi leen di maa ngi ndey ko moom moo ñoo ko defoon mais yàlla daa def mujjul teew erreur technique la woon ñu ngi siy jégalu tey yaakaar nañ ne dinañ si jot incha allahu rabbi waaw Babacar euh, dañuy dugg déjà ci li nga xam ne ni mooy jàngat bi ak euh, li gën a fës tey ci sunu lamb muy tafaatin tafaatin mi nga xam ne boobu ba léegi mu ngi dëkk ay mbër di wut ay adversaire ndax euh, yàqamti bëre moom nee na moom ci moom fu mu toll nii yaramam day xasan gisul lu dul combat te moom na dina dëkk ñëpp ba mu des ki nga xam ne ni mooy bombardier parce que li nga naqari moom moo ko teg. waaw loolu moom yaakaar naa ne ah, ci mbër sa très normal ay sëtu parce que tamit Tafa comme ni ñu ko waxee champion la ci làmb ji la bokk am na ci paaram te itam mbëru gox la ndax bawal boo bu fekkente ne dañuy wax dëgg te yàlla tax tey mooy mbër bi nga xam ne nii mooy mbër bu mag bi fa nekk di leen représenté yaa ngi dégg kon gox lay représenté kantaan nag comme loolu mu wax noonu ñu xëy gis ko yaram buy xeseen nag yu mel ni kii noonu wala tànk yu xeseen ak digganteem ak Balla Gaye foofa moom am na droit laaj parce que Balla ko daanul kon moo war a laaj waaye kontaan Bombardier li mu wax xel nangu na ko bañ koo laaj parce que itam boo xoolee moom Bombardier yaa ngi koy farleku Demba Diop xeex ba metti woon na deret ja bëri woon na mu far am ndam kon moom am comme bu ne du ko laaj xel dina ko nangu waaye yaakaar naa ne actuellement même bu ko laajee wala Bombardier bañ koo laaj ñoom ñaar même bu ñu laajantewul mais dama naan fi mu nekk nii làmb boole na leen guddi yi toll nii Tapha Tine neex a neex euh, euh, a ak Tapha mu nekkaat beneen revanche Babacar bien sûr lu yenu maanaam parce que làmb dafa war revanche ay satu parce que lu tax mbër moom boo ko daanee yaakaar naa xelam ni ci war a mooy fay fayeeku moom Ama daan na ko Ama tey bu fi naree nekk def année balance moom mu nar a def année balance war nañu mën a revanche seen diggante parce que ñii dañ ne Ama euh, xam nga da caa dal kere daan tafaatin ñi ne Ama man tafaatin loolu nag dafa nekk lu nga xam ne tamit lu ñu war a leeral parce que lu tax mooy bëri woon nañu Ama am ndam revanche dafa war a mën a am parce que làmb ku la daan yaakaar naa sa xel war a mën ci fayu kon revanche su ak tafaatin lu war a valable la quoi pour man waaw euh, Babacar euh, bu ñu jógee ci Tafatine dañuy dem si ki nga xam ne nii mooy euh, Bombardier waa sunu lamb mu ñëw ci li nga xam ne moo ko desee si carrière muy deux ans ñu ne nag ci deux ans yi day profito largué li nga xam ne mooy ay misilam moom mi ngi lijjanti retraite am jaarale ko ci MMA bi mais tamit mi ngi jéem a xool mi muy génnee par la grande porte maanaam génn ak ndam. mu nekk ay défi tamit yu ma yaakaar ni ji war na ko mën a jéem a relever balaa muy bàyyi làmb. waaw loolu moom nekk li nga xam ne nii comme ñaarata ko dese. te boo xoolee comme li may wax rek moom si biir carrière am nekk na mbër bu nga xam ne nii gis nañ mu def loo xam ne nii jafe na def ko loolu nag su amee parce que roi des arènes ñaari yoon Bombardier moo ko amagu tey nag bu demee ko dese yu mu war a sànni <laughs> ah ñuy xool fu mu koy sànni wax nañ fi léegi digganteem ak Tapha Tine digganteem ak Balla Gaye mën na ne digganteem ak Gris Bordeaux na ne digganteem ak Ama Baldé na ne parce que fi mu nii comme li ñuy wax rek moom mooy choisir bu exactement waaw. ñu jóge Mbour euh, dem fi nga xam ne ni mooy parcelle Rock Énergie coow li bëri woon na ba ñu wax ko fii ak euh, ki nga xam ne ni mooy. Euh, président Cheikh Sow mu defoon waxtaan bu yaatu wax lan mooy problème beeg lan moo tax boycott yi di ñaan ñu jeex mais fu mu toll nii nag mbëri ñoo jóg parce ñoom ñoom ñooy te bu leen boycotté ñoom ñoo siy gën a sonn nee nañ bu jaree Cheikh Sow dem na dem du ñu bind leetre excuse jéggalu ñi nga xam ne ni mooy bureau des managers ñu bind leen lettre jéggalu leen ngir rek seen combat mën a yoon parce que tamit nekkul neexul Babacar nga nekk xale bërëtë la waaw Aïssatou day taal bu téye tàkk noonu lañ koy uppee lool nag defe naa moom la roog intéressé xam fi mu nekk nii parce tamit comme li Cheikh Sow waxoon taxul mbir ma faju tey ñu gis ne que xale yi mënatuñoo bëri te li leen ko yóbbee xëy na mooy ci côté man boo xam ne nii ni ñu ko yaakaar noonu la war a demee demeewuñu ñoom mbër yi bëri nag nga xam ne ñoo moom tàccu yi moom xaalis bi moom succès bi nag yaakaar naa ñoom bu mbiri na dem ba kale dañ day xale ñoom ñoo génn wax bu jëree Cheikh Sow dem ah loolu nag comme li may wax rek ñoom ñoo bokk seen ñoo yor seen écrit Cheikh Sow président bi mbër yi ñooy bëri li ma leen di digal mooy nañu toog waxtaan yaa ngi dégg xool li nga xam ne nii moo jaadu ñu def ko ku ci nekk bañ a def lu nga xam ne nii day gaañ écrit bi ndax tamit ay xale fa ne war a doon ëllëg ay motlo war a doon ay xaadim gajaga war a doon war a doon kon defe naa xale yooyu war na tax ñu xam nga euh, maanaam ñu ñu ñu ñu veye ci xale yooyu daal ba nga xam ne nii muy Cheikh Sow muy Biram Ñing ak As Cissé ñoom ñëpp ku nekk mooy ba ci muur la mooy tëdd fil ba ñu bañ a jël seen ay jiital ko mais ñu jiital intérêt écrit bi muy intérêt boo xam ne day nekk lu général nga xam ne bu juree njariñ ñëpp ciy gis seen bopp parce que yàq ànd rek mooy tege lees man ñu bañ ko ak it technique ki loo xam ne manu ko yooyu nag bu amee mën na yàq ay diggante. mais li gën ñi ngi woo ki nga xam ne nii mooy Modou Lo seen euh, chef de file pour mu ñëw tamit euh, jéem a lijjanti situation bi. jàppale leen ko wooyee moom yaakaar naa war na leen wuyu si parce que ay rakka ma ko woo ñoo xam ne moom seen idole la tey mooy tête de file ba si palmarès si. si si si si côté kase ak ci côté code de popularité kon yaakaar naa war na mën a wuy ci rakkam yooyu nag dimbali leen addu parce que itam moom waxam war na am lu mu mën a jëriñ ci écrit bi encore une fois daal leen wax ne que ñoom ñëpp nañu xool seen int seen intérêt écrit maanaam intérêt général bi pour que mu mën a nekk njëriñ bi nga xam ne ëllëg yeneen Modou Lo war na mën a génn ci écrit bi parce que tamit loolu mooy tax li nga xam ne ni mooy fi ñu war a jëm ñu yegg fa ñu dem Babacar ci li nga xam ne nii mooy championnat d'Afrique de lutte yi nga xam ne war na am euh, Tunis suñu lion yi ak lion yi ñoom tamit ñi ngi waaja dugg regroupement suba la ñuy commencé fële ca Léopold Sédar Senghor mu nekk tam compétition Babacar boo xam ne am am na am na loolu moom am na parce que boo xoolee championnat d'Afrique yooyu Tunisie lay amee xam nga comme niñ ko xamee nag regroupement bi suba lay commencé fële ca stade Léopold Sédar Senghor ah muy équipe bu góor ñi ak bu jigéen ñi ñu leen ñu di leen ñaanal rek encore une fois ñu dem ci championnat d'Afrique yooyu ci jàmm ñibbisi ci jàmm te yàlla def li tamit ñu am ci ay ndam parce que Sénégal moom ci côté lutte bi ah yooyu ñu fa ay trophée waaw vraiment xëy na yeneen yeneen discipline yi mais ñun discipline bi nga xam ne moom lañ moom muy sunum réew moom muy làmb ji vraiment fépp fu ñu ci dem ci àddina bi rek wane nañ fa suñ bopp moo xam championnat d'Afrique la championnat du monde ak jeux olympiques ak fu nekk rek dem nañ fa dem nañ sax ba mbër téefi flambeau olympique ca Londres duñ ko fàtte mukk muy Modou Lo mii kon lamb moom saa bu génnee au niveau international rek siggil na drapeau Sénégal encore une fois waaw. dañuy daal di jeexal ak li nga xam ne ni euh, moom la ñuy waajal muy combat bi am euh, le 17 mars incha allah fële ca Léopold Sédar Senghor diggante Papa Boy Djiné ak ki nga xam ne ni mooy euh, Papa Yada ñaari mbir itam Babacar di waajal seen open presse parce que Gibson moo tëgg combat boobu noonu. waaw waaw la demee waaye nag xam naa ne <laughs> nit nit day juum buñ ko yóbboo Léopold day day ëpp ay satu mais nañ ko bàyyi stade Iba Mar Diop. <laughs> voilà la demee mais loolu tamit ñaan la rek parce que ñoom ñu ngi jafe ëllëg ñu bëre Léopold wala arène nationale kon Papa Boy Djiné di xale nekk écurie Waalo nekk xale bi nga xam ne vraiment mu ngi ci yoon bi di ñëw ndànk-ndànk te war na mën a nekk ëllëg champion parce que mu ngi wane boppam yaa ngi dégg ki mu ko tamit kazalika naka noonu muy papa yàdd nekk xale boo xam ne ku jar a bàyyi xel la ku mën a bëre a xeex ku am sañ-sañ muy xale yoo xam ne daal vraiment Jibson tëgg na dimanche le 17 lamb ju neex seen face à face nag mu ngi war nekk wala boog seen open press tey lañ ko war a def astafurlah maay jéggulu kon suba ci mercredi ji ñoom ñaar ñëpp ci la ñuy def seen ay open press muy loo xam ne tamit ay xale lañ di reefa nekk champion ñu di leen wax ne que daal lamb ji dimanche la na ko amateur yëpp xam ñu leen di ñaanal rek ñoom ñu mbëri ñu ñëw si jàmm ñëpp ñëw si jàmm ñu fekk côté tal ko que le ay satu keneen euh, kiy waajal euh, bés bu mag tamit Babacar euh, muy borom bawol production ki nga xam ne ni mooy Assane Ndiaye Assane di waajal diggante Mambal bu mag numéro un ak ki nga xam ne ni mooy Tafa Mbër mais tamit andi na général Malika ak ki nga xam ne mooy mbaytin mu tuddee drapeau bi bu mag bi Aziz Ndiaye beneen drapeau bi mu yóbbu jox ko ki nga xam ne ni mooy ab Abdoulaye Diop borom xaas mu nekk tam journée boo xam ne le 23 mars dina nekk journée keroog ca arène nationale Babacar. waaw li may wax rek Assane boo xoolee moom vraiment moom tamit nekk na promoteur bi nga xam ne wala neexee sax ne promoteur amateur la. parce que à chaque instant ci ay génnam da ngay gis ne fu mu tëgg rek day fees boo xoolee arène nationale euh, moo tax kenn ma ko doon tooñ naan ko borom deuxième étage dafa dafa ñëw ba deuxième étage ba am ay nit mooy double majeur naaru sogaas tey ñu gisaat tamit mu ñu war a ñëw le 23 mars di delloo njukkal Aziz Ndiaye ci Mame Balla ak ki nga xam ne mooy Tapha loolu tamit dama naan yoon la comme li fàllu li ki xam ne moom la Sam defoon bërki dim loolu la Assane répété rek ndax Assane ndax ki nga xam mooy Aziz ku ko delloo njukkal ci làmb def nga li la war parce supporter bi mu ci tolloo nekk amateur bi mu ci tolloo nekk promoteur bi mu ci tolloo tey mu tollu ci nag di jàppale làmb financièrement ci côté sponsoring Assane bu ko delloo njugal la ko war la def ki ci des mu Cheikh Ablaye Diop xaas itam ñu delloo ko njugal muy nit bi nga xam ne nitu diine la di nit kuy dimbale ay nit ci lu nit ñi xam ci wàllum ñaan ak alalam ak léppam nekk fële nga xam ne mooy Malika ñu di ko delloo njukkal drapeau boo xam ne général Malika la ak mbaytin loolu tamit dañuy wax ne daal vraiment Assane initiative boobu mu jël dañ koy ñaanal mu yeggalee ko ak jàmm mais vraiment ñaar drapeau yooyu daal. kon général Malika am na sas de. waaw sëriñam te su ma juul ndax moom nee na ab Ablaye Diop xaas mooy sëriñam. nekk Malika nekk Malika muy bëre drapeau waaye est-ce que mbaytin bu Mor Fadam dina ko ci bàyyi. moo tax nga xam ne Assane Ndiaye daal indi na lu doy waar te ay booy puye nga ca biir ñoom tonnerre bu écrit Ndakaaru maanaam journée boobu daal ala daw dëgg la nar a def le 23 mars yàlla nañ ko fekkee encore une fois te tal ko ay satu Euh, Babacar ci loolu la ñuy joxe rendez-vous ñi ñuy seetaan euh, ba suba incha allah di nuyu balaa boobu ki nga xam ne ni mooy euh, Mame Talla suñu baay Fall bi Chéri Lébu mu nekk ci caméra bi di nuyu Ousmane mi nekk ci montage bi di nuyu équipe Leewtoo TV bi yëpp mais tey damay dem ba Mali nuyu ki nga xam ne ni mooy sama mag bi nekk foofu muy Charlotte Charlotte Faye maa lay nuyu bu baax a baax a baax di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi suivre Leewtoo TV ñoom Mado ñoom Amar Gueye ñoom Nongo xam nga ñoom Benzema depuis Algérie ñëpp daal waa Argentine ñoom Assane ñoom ñëpp nuyu naa leen bu baax a baax a baax Babacar Aïssatou rafet na waa comme ni nga waxee rek di nuyu ñi nga xam tamit ñooy kii bu Leewtoo bi du mën a ñàkk di wax ne kare ni ñu def si drapeau Pape Thialis bi noonu loolu mooy àddina sa kilifa buñ ko delloo njukkal ñi mu war a ay nitam génn àndak moom gunge ko loolu ñu koy magnifier encore une fois di encouragé waat Sam di ko féliciter mais di féliciter Pape Thialis ak staffam yëpp ak ñi muy àndal ñëpp góor ak jigéen rawatina nag ku mel ni sa mbokkum naar bi <laughs> waaw jaxumpa waaw matu jaxum matu voilà matu ñoom fleur gis nañ leen ñoom ñëpp ndeela kere kenn desul daal ñëpp génn xam nga ñoom rose <laughs> waa rose di wax ne que rek loolu mooy ànd ànd daal vraiment tamit di masaw ki nga xam ne nii mooy lig Nicolas kere li xew ca Mbour doon yéenim parce que yàgg nay organiser événement muy jeex commencé jàmm jeex si jàmm yaa nga foon mais loolu des fois day am du mën a ñàkk bés des fois mu am lu ci rax lu ci bokkul mais yàlla def na jàmm ba kenn ñàkku si bakkanam ay blessure ci am kon rek lig ñu koy nuyu di nuyu stafam ñëpp ñoom raay bi ak waa lig ni ko lay waa ENCO yëpp di nuyu encore une fois Talla Ndiaye ci caméra bi Ousmane ci montage mais ñi ñu suivre tamit duñ leen fàtte xam nga ñu ku mel ni ki Mouhamed Ndiaye Italie moom day suivre bu baax a baax gars yi Fallou Ndiaye du ñu limee dañuy juum mais loo ci mën a dégg daal moom moo sëy ñu ngi koy nuyu xam nga Toumani Balotelli Emmanuel Diouf di nuyu fan si club Babacar bi ñoom Grand Laye ak ñoom Codé ñoom Cheikh Ségéré Jiga Pablo nuyu naa ñëpp ak jib seen mi nga xam ne tey gis nga simis bi tré bi moo fi jaarati jib ma lay nuyu borom Petersen di nuyu waa Petersen yëpp di wax ne que Sénégal yal na fi jàmm yàgg te sax fi xol bu sedd yaram mu sedd ay satu yàlla na ko ñëpp am barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ñu leen jox rendez-vous suba incha allah